Uh-huh. une affaire entre deux personnes man Ignace me plainte vous me retirez plainte ci dara Yonday day Vous ci dara. mais mais mais mais bii dafa spécial. pourquoi vous spécial. ay nit dong lañu. loolu lay bañ. Ignace xam nga génn non non. Ignace je te coupe. non du la sax déglu fu nga homme politique il n'est pas spécial. non déglu ma soo spécial waxuma la ni complot spécial parce que fii laa gis ku ñu viol demuloo kasso yaa ngi dox mu ngi ni kenn kenn tëju man ñi ñu accusé viol yépp ñi ma gis ñu ngi nekk en détention préventive. Euh, il faut faire confiance loolu moo tax non non non il faut faire confiance à la justice on ne peut pas imprimer à la justice ça marche. lo xam lan mo lan mo lan mo doog mën doy war lo xam ne yoon permettre ko. waaw li yoon permettre yoon moo permettre. Hein? ñu def la. contrôle judiciaire contrôle judiciaire yoon ko permettre donc on n'a pas de débat à débattre là-dessus on n'a pas à débattre là-dessus Lo xamné ne yoon na ko tek. teg ko ci yon nak, nangu ko ko li munul ne nak moy que homme politique se mettent au-dessus de la loi ça c'est dangereux pour notre pays et pour le monde entier mais homme politique dañu ne dañ ko bëgg fexel bu mu candidat Lolu nee naa la ñi kay wax le système de défense là. am nañ ci sañ-sañ dé. wala dégg nga fi bo mon tribunal di deg avocat yi di layal yow da ngay tit dañuy ay nit yu ñu flagrant délit ñu leen di layal kan mo mun layal kuy kuy flagrant deli, mais c'est parce que lolu moy yoon parce que ñun ñi sax ki ñu sàq moy sunu borom ñi il faut mu am ñu ñu layal yow dal legi gisoo ci benen pexé bu dul dem procès man pexé bu ma gis bu dee kenn ki nangu na plainte ñom ñaar seen problème la ñom ñaar bu dee kenn ki dafa bëgg médiation pénale moom moo xam na fu ñuy jaar pour def médiation pénale parce que loolu loi bi daf koy permettre du dëgg bu nekk nag am na nu mu tëddoo mais bu dee ku nekk dafa taxaw d' abord ne moom dafa yàkkamti ñu dem procès ndaw si wax ko moom Ousmane mu wax ko ñu ñëw ba fii mais Sénégalais léegi ils veulent savoir ah parce qu'il y a eu quand même 14 morts il y a eu des milliards détruits loolu mënuñu ko def perte profit parce que même sax tey ñoom bu ñu d'accordoon ba def médiation pénale mhm. ba génn ci mhm. on leur demandera, demandera des comptes mooy ñaan ñoom ñaar kon 14 mois, yi ñan ñoo ko ci ñoom ñaar la ci ci problème bi ci seen problème la jógee parce que forcément am na ku tooñ am na ku ñuy fen forcément dans cette histoire am na ku def ak ku deful donc 14 mois yi loolu la lan mo indi xex bi émati lu ko andi mortal combat génn len fu mu jógee ci affaire suite Beauté donc c'est lié maintenant c'est vrai qu'il y a des contextes un contexte boo xam ne dañ ci nekkoon muy couvre-feu bu yàgg bi Covid bi bon voilà nit ñi sonn tëju bi pression bi et tout ça les gens euh, ont trouvé un prétexte pour déverser le trop-plein mais la fausse principal. C'est ça. c'est le déclencheur. D'accord. merci <laughs> monsieur le ministre qui euh, wàll boobu ñu jeexal rek euh, rapidement euh, par rapport à cette remobilisation souvent dañ leen di accuser y yow ak yenn leader politique de il faut me poser la question parce que gars yi wax nañ ma ko fii ñu ne yow ak yenn leader politique doo leen yow Doudou Ka doo leen déggoo tey soo leen toogee ngeen ne ay xarit ngeen. j'ai jamais dit que Doudou était mon ami je suis désolé. non d'abord, ni te soo leen toogee. waaw ngeen di wone ni ay xarit ngeen man duma tricher da nga mësa gën bay won non ah, je dis non non dafa ndal mën nañ ànd di politique te duñ nekk ay xarit mën nañ ànd di politique te du am benn rapport uh-huh. la ñuy boole objectif bi c'est vrai nag ni dañuy insister trop ci sama ak waaw d'autres leaders oh, ñaar lañ gis d'autres leaders donc j'ai l'habitude de dire aux gens man mayuma kenn muy dox sama diggante ak sax président de la république parce que mom ak man xamanté nañu xamanté nañu. gën naa Il y a bokk parti y a bokk. mouvement du affaire parti bi rek c'est au-delà du parti parce que man ne sais koy xam c'était veillu lancement de nos campagne préparer préparé programmes, programme yoonu Le président Yabalma, pour Madame dem rencontrer le cabinet pour xam ne dafa ci pré projet parce que nous ku nekk am na Nous bindoon ñoom ñu compiler ma pour rencontrer le cabinet là pour échanger ci qu'on ñu fait, man avec deux autres personnes

voilà ñoo ci ëpp bruit. parce que yow yow su balde gagné dem nga fa remercier ko waxtaan mu gaay japp ni xaw nga jégué balde dudu ka par adé balde bi mu fi gagné gis na da nga dem nga remercier kon jant par courtoisie républicaine c'est un devoir nit ngeen and jongante sonko gagné mu gagné nga dem féliciter ko sonko sonko dem nga demulo est-ce que sonko nit mën nako jégué ah lutax man première fois bu ñu dajé

ils n'ont pas de savoir-vivre ma classé leen sans suite ah parce que man duma doxandoo ay garde corps xamul nag fu ma dul dugg ci Casamance ragaluma kenn ragaluma dara sama diggante nit ñi garde corps du ci dox parce que je suis un homme public mais bu dee sa de nit ñi y a des hommes yoo xam ne pour xeex rek la man bokk sumay affaire kuy fonctionner noonu du ma du ma sax am affaire ak yow am na ci sañ-sañ nag man tamit am naa sañ-sañ ne façon yi neexuma parce que toujours ça ça ça ça ça ça ramène à la violence ça ramène à des comportements violents man amul fu ma dul dugg ci Casamance laa wax dans les villages les plus reculés ñi may àndal xam nañ ko damay ñëw dugg fenn militaire yi taw jaaxle ne foo jëm man na leen damay dem ñu ne ma mais fii min am na fi ma ne leen sulli leen ko ma romb ragaluma dee def politique mais sama digganteeg nit ñi mayuma ay garde corps ay nitu fitna ay nitu doole di dox sama digganteeg nit ñi donc boo de boo amee comportement boobu mooy def teg nga distance yow ak nit ñi Je n'ai pas besoin d'aller te saluer. Vous êtes des responsables politiques de la région, des leaders. Chacun avec son comportement. Moi, on n'a pas besoin de visa pour accéder à ma maison. On n'a pas besoin. Je n'ai pas de distance. Man je ak nit ñi distance. Man da suis may gis ma ay sama Sans chauffeur, sans rien du tout. Je ne may gis may dox man kenn ci distance. bi. Ku ma n'ai loxo J'ai pas ces problèmes là léegi nag bu dee am na ñoo xam ñoom dañoo am distance ak nit ñi man ci nit ñi la bokk. d'accord voilà <laughs> monsieur le ministre merci vraiment content nañu ci euh, émission peut-être ce cadre bu mujjee rek so amee appel boy lancé bala ñuy tagato alors euh, vraiment de le remercier encore une fois de le féliciter de le encourager di wax né wax yombul mais deug deug dégg-dégg mo am solo. coow li coow li yëpp nit ñi dañu war a ànd ak dal jiital seen xel jiital sa xel nag mooy savoir se faire sa propre opinion des choses man musuma nangu nit di ma xalaatal ba ma nekkee gune ba léegi man dama mësa a gëm sama bopp ba ma nekkee gune ba léegi kenn duma xalaatal kenn mënuma manipuler kenn kenn je me fais ma propre opinion des choses Moi, tax du ma gaaw wax mais ñaan y nit ñi di am ràññee qu'ils apprennent à se faire leur propre opinion des choses Xamé wax bu jub ak wax bu dëng bay ku nangou ñu manipuler des suba fu ngay mujj du neex da ngay mëna dégg déglu am dégg-dégg ci lay wo ñep di wo tamit euh kilifa yi kilifa diine yi kilifa aada yi ak yooyu man mon rêve le plus fou Ignace tey mhm. mooy Casamance jàmm sax fi investisseurs yi dellu si région bi nag maa ngi ñaan sama borom jour ma gis ko balaa may sangoo suuf parce que c'est le combat de ma vie tout lool pour am il faut ñu dal ñu bàyyi di tour deret deret baaxul di tour deret baaxul baaxul ci réew mi ci nit d'accord nañ ko d'une manière ou d'une autre mais tour deret dafa araam dafa baaxul te dinañ ko layoog suñu borom. tam Casamance mérite na leneen lu dul ñuy tour depuis plus de quarante merci euh, beaucoup monsieur le ministre d'État Benoît Sambou Mon nekkoon suñu gan ci émission heure de vérité Moi yi di leen sant leen di émission bi suñu ami toute la technique DJ Chat DJ Kara qui était aux manettes mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette émission qui est à présent terminée heure de vérité vous donne rendez-vous lundi prochain avec notre d'autres invités mais on en profite également pour